neexul ba neexul waaye réew mi day neexatu la waxee Dakar Times mel ni ku naan kon wala kuy wax nga wax lu la wóor turbine yéen ne en tout cas Cheikh Agibou Soumaré ni ki tey jii woolu nañ ko te boo moytul déferment dana ca am gannaaw ba mu neelu jege juróom-ñett ci milliards président Macky Sall daal dina koy jël daal di koy jébbal marin Le Pen ca lañ ko wooloo nag ci sûreté urbaine critique yéen a kaay naan la ko ci nar fekk day du sedd mu mukk gouvernement ga weddi nañ ay tuumaam moom Cheikh Agibou Soumaré ne benn dërëm président Macky Sall jébbalu ko Marine Le Pen xanaa kay ab téere la daal di jël dédicaceel ko Marine Cheikh Agibou bu sumaare ca laaj ya laaj yéen kaay bi maan boo moytul day article 80 dal ci kawam tribune yéen kaay ne ma xanaa doo xool mba la aggi bu sumaare déferment boo moytul ca lay daal di mujjee honneur am ak bu président Macky Sall dëgg-dëgg buñ ciy taamu aggi boo moytul man di la ndugg siin lay daal di mujjee le quotidien le quotidien ne en tout samp nay laaj Birahim Seck ci tribune yéen kaay ne ay laaj la de kon xam ngeen ni laaj la ay jamono ba nga nekkee premier ministre ay maletu xaalis daan na circuler bàyyeekoo ci yow Dakar Times naan mbir maa ngay mujj miti de agi bu sumaare tuumaal na nguur gi laaj leen Marine Le Pen ni ki tey jii 9h daañu ko invité ci France Inter ngir mu ànd ciy gindi moom président Macky Sall ak ay ñoñam nee ñu le Sénégal à cœur lan jébbal marin la Pen ab téere la defal ko nag ab dédicace yéene kaay bi naan laaju agi bu sumaare gi mën naa nag jurub guuta ndax parquet financier bu Paris nar naa ubbi boo moytul ab enquête ngir leeral mbir mi Soumaré ci boppam soo moytuwul nag mën naa dem tey jii daal di jéggalu ci lépp loo xam ne ab tuuma lañ ko foog te mu teg ko ci ndoddu président Macky Sall l'info yéene kaay ne ko agi bu new fi bu ñibbisiwul ba biig ci xaaja guddi moom agi bu Soumaré day ma nga woon Dubaay kon tey jii kan la ñuy laaj ndax agi bu ci boppam nekku fi Dakar Times naan maan weñ ngaa nga bañee ca mbànja xan nga de laaj bi laaj bi mooy lan la président Macky Sall di defub audience audience boo xam ne dalalu ca kenn ku dul Marine Le Pen Marine Le nga xam ne du kenn ku dul ku nekk ca réewum nasaraan ya di tuñ tuñal nit yu ñuul ñuul ya bëgg nekk présidente bu France te nee na bu ko doonee képp kuy nit ku ñuul da nga ko abal soo amul këyit able te amul këyit gi sax dafa am condition yoo xam ne dañ la koy tegal koo xam ni fu mu toll nit ku ñuul lay waxtaanee moom lay ñaawlu ak nekkinam ca France moom lay tuñ-tuñal ngir ñu abal leen seenub réew kookee la président Macky Sall dalal Dakar Times ne dalal gi ci boppam moo waru l'observateur naan man en tout cas nguur gi day fanteg seen tànk b ci jógulee mbaa mi du yëngu ndax nag saa si tembe ñu daal di koy teggi teg fee loolee nag buñ ko defee mbaa nag ku wax ci réew mi dun na jël tàbbal kaso te loolee nar a mujj nag ci suuxal réew mi moom Seydi Gassama ci l'indépendant yéen a kaay naan goor gouvernement gi dañoo juum de ci coow lii dañ ca juum ndax nag dañoo daal di jaawaarle interpellation ak accusation ndax agi bu mësu leen accusé daf leen laaj ne leen ndax da ngeen jox marine Birahim Seck naan ay laaj la de te laaj ci nag jarul ñu ciy menacé kenn laaj la daal di samp moom agi bu sumaare ku mën tontu tontul ku mënul tontu nga bàyyi l'enquête quotidien ne ma en cas moom président Macky Macky Sall saa si tembe day mang ca tànku Hadjibou Soumaré woolu nan ko tey ca sûreté urbaine te PV ba cay daal di juddoo man na ca jaaree dugal ndungu siin moom Cheikh Hadjibou Soumaré vox suba bi ne Khalifa Ababacar Sall nga koy ñaawlu le témoin yéene kaay ne crime bi day du leen lu dul ay laaj ay laaj daal la Cheikh Hadjibou Soumaré daal di ñu daal koy woolu la mandat yéene kaay ne saa si tembe sunu justice sum réew kenn da koo wóolootul kenn faaleetu ko kenn nawlootu ko laaj ba samp mooy lan moo ko waral turbine ko barki démboo Njaay fii la bugaan lu laaj laaj ne leen juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay milliards da ngeen ko daal di luubal ci fonds bu désenclavement bi ministère du transport la mbir mi daal di jaaree tàbbi géej xaalis baa ngi ci réew mi ñu dénk ko ab banque Mansour Faye xam ne xaalis baa ngi ci réew mi ministère des finances umpale boobule xaalis te dañ koo lebi woon Bougane Gueye dañu leen génnee leen xaalis bi boobaak léegi tontu wuñ ko waxuñu ko ca lenn tribune yéen kaay sampu laaj ñàkkub tontu goo mbaadu nag mooy firndeel ni loolee ñu daal di wax dëgg la tribune en tout cas ña ngay woolu Cheikh Agibou nga xam samp ay laaj bugaan gay dani ma nga xam ne da leen tuumaal l'évidence yéene kaay naan man booba nguur gaa ngay tëñ-tëñal ngir ñu xool nag wàññi dund gi fu mu daal di toll tribune yéene kaay ne ma saa si tembe day président Macky Sall moom Amadou Ba tegu pression ngir mu daal di koy wax njëkki fu mu toll le soleil yéene kaay ne gouvernement gaa ngay pressé nee na nag révision liste électorale yi na gaaw njëkk yi nga xam ne daal dinañ koy homologué na gaaw ndax nag wàññiku gi ci réew mi dafa war a leer nañ laas yéene kaay naan kon Dakar moom lu ñuy tëral bëgg ko la ñuy bañ vox xam ne aftu yokk na ko parce la ni na dak sétude naan bu kenn fay paas bu ëpp ndax du dëgg du yoon source aanaan man coow la it ma nga ca kurus bu université Cheikh Ibrahima Niass bu Sine Saalum directeur ba ci boppam moo daal di wàññi salaire ya dàq ñenn ña ña doon am 140 mille ña nga ca diggante 80 jàpp 97 mille ña doon am 97 mu yóbbu leen 70 saa si tembe ma nga dugal mbir ya ci guuta vox populi daal di may xamal ni grève bu ren day daañu ko tàmbali ci weer wii ci réew mi professeur Farika président bu conseil national bu don ak transplantation fii ci réewum Sénégal ne ñaari million la ñuy defee transplantation bi ndax rein dee su ko jaay tribune yéen naan man niki démb màggal nañ soxna yi jigéenuk dee média yi wane seen bopp yeewu ca njël daal di séddale tribune yaak ndékki askan wi bugaan gay dani def tex-tex may ree kontaan ci soxnaam dooleel dee média jébbal soxna yi nga xam ne dañ koo yittewoo dund tribune yéen a kaay naan man soxna yi dee média loo ci manti déggit niki démb daal di nañuy wane seen bopp bien bon def seenu nuróole wax seeni doléance def seenu conférence waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne soxna yi am nañ ko am xam ne dinay gën a cëral góor bàyyi jigéen conférence ba oustaz Ousmane Mbaye waaye tam madame Diallo bu AGS daal di cay wax xale yi dee média mu sóor takku wane seen bopp l'info yéene kaay ne ma tey laa xamal nag joor Fall Sow mooy première bi nga xam ne doon na procureur fii ci réewum Sénégal direct news daal dina ma beneen lingeera ngi Nafisatu Cissé la ñu koy woowee ci politique la nekk waaye daal di réer bañ ko laajee mun a yenn saay réer ci politique da ciy baax ndax saa si tembe liggéey la ñu wax te sabab géeg la lu liggéey bi du lenn lu dul faraat président Macky Sall 2024 exclusive yéen kaay naan maan ku nekk na mu feetee 8 mars kud moom dañoo defal mention spéciale fompkat ya lonaas daal di jébbal ñëpp ay raaya onaas soxna ye wan mbëggeel seen DG l'indépendant yéen kaay naan maan ca Thiès njiital AIBD dafa sargal soxna le quotidien le quotidien naan soxna yi day saa tembe dañoo bëgg nag ñu gën leen jox seen cër ak seen gëdd ci réew mi tribune yéen kaay naan maan ña màggal mars ñoom soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci C50 PN yi defu plaidoyer ngir nag ñu gën leen gëddaal jox leen seen cër ci réew mi ñu gën leen gunge ci secteur BTP ci secteur pétrole gaz ñu gën leen gunge ci aviation bi ñu gën leen gunge ci immobilier ndax ñu ñemee soxna C50 PN yéen kaay bi naan maan ña ngay xam ne ni entrepreneuriat bu fort la ñu bëgg ngir soxna yi l'observateur mel ni ku naan kon lii la ñuy xaar ci bés bi def plaidoyer waaye bés bi nag du ote soog mu mbaaye xumbaay waaye xool droit yi nga xam ne soxna yi am nañ ko ñu imposé ko ngir ñu def ko Sud Quotidien naan kon waxtu wow nga xam ne ñu ngay xumbaay ak mumbaay yenn ci soxna ñu ngi dund jafe-jafe dëgg-dëgg ci biir réew mi te bëccëg bii lañ ko xeexee ba mu nekk réalité waaye beneen jafe-jafe soxna yi am ko muy nag accès ci foncier jaaxal leen lool waxtu woo Walf Quotidien daal dina ma bul sori saa si téeméer nag Idrissa Seck mi ngi toolu dëgg-dëgg ci nattub dooleem waa Grand Place naan kon juróom-ñaari fami ci fukk ak ñeent ci nga xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan ci événement mars yi de porté nañ plainte L'Enquête Quotidien naan maan ca Médina Gounass njiital conseil départemental bu Tambacounda Mamadou Kassé ma ngi leen di jox seen gëdd ca dàkk bala dem daal di leen di taxaw ñu ne gees Mamadou Kassé dem ca kër ceen ak Tambacounda taxaw it ndaw yi ci journée mondiale de la jeunesse ba jébbal ko abbé Florent ndax ren jii département bu Goudiri mooy dalal journée mondiale de la jeunesse yooyee tribune sport naan man ndam la jëlee nañ ko ci rëg-rëg daal di koy jébbal Sa Thiès naan man Paris Saint-Germain ni ki démb daal dinañ koy éliminé ci huitième de finale Ligue des champions AS Milan daal dinay éliminé Tottenham réew mi quotidien daal di may xamal na ca diwaanu Sédhiou lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom ci ay ndongo daal dinañ leen di wan looloor ëmbal leen ak lu mën a am mbokk yi na ñuy ci suñu chaîne jotaayu xibaar yi yëpp te aju ci réew mi ak ci